asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah vendredi 24 avril 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb fa la nuy xëy doore ko mu mel ni ki yëglikaay ba la mu xëyoon démb wax ñu ko ci xalima ka nga xam ne moo di Iba Kane moom la xëyaat tey feddali ko maanaam daal Alioune Sarr mi nga xam ne fi mu nekk nii moom wàcce ko la ba nar ba tax na mu ngay consulter ay nit mu mel ni ki nag xëy na wan ñu ko ci fété wu photo wu yaatoo yaatu wala boog photo bu a doon xaar wala mu jay xaar boppam moom daa mel ni kon bu yeboo mu toogi ndax nag ci li ñu yëglikaay bi wax daal moom génn nañ ko ca course ba maanaam du ca bokk ñeent ña ñu jàpp daal yëglikaay ba ñëw na ca ci ñi nga xam ne seet nañ leen dana fonctionnaire boo xam ne daal mu ngi ca INSEPS daal bokk na ci ak koo xam ne ni ab assureur la ak kenn koo xam ne ni ancien lutteur la waaye itam ak benn amateur boo xam ne day bu diplômé la sunu lamb xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu lu mel ni ki nag coow loolu moom danañu baagante ci ñaari journal yi muy sunu lamb di record ndax buñ demee ci record moom daa mel ni mbir mooma ñoom itam day daa mel ni ci seenu xalima wala ci ma daa mel ni daal la jàpp wala lañ ko wax mooy mbir ma amul nee na nag waa ministère des sports ñoo weddi loola maanaam daal ku doon xaara demuk Alioune Sarr moom nee na waa ministère ba moom démentir nañu mbir mooma ba mu set wecc ndax ñoom nañ taluñu lool corona ba lanu tal loolu record lañ koy fekk mel ni ki nag yemuñu ca démentir ba de waaye sax ay menaces boolewaale nañ ko ci xamle na nag li am ba des daal kuy wax wala ngay bind demal nga xooli référé wu fa ab journaliste noonu lay def ne nañ nag ka wax loola record ka ka nga xam ne nii mooy Mbaye Sat Diop nekk ca ministère ba dox ca wàllum communication ba moo wax loolu ci journal bi nga xam ne moo di record mel ni ki daal coow loolu kon fi mu nekk nii moom mu ngi mel ni tuleeg màlle dana dem ak du dem ñii bindilee ñëla bindi la ca des mu mel ni ko lu doy doy waar la keneen koo xam ne nii moom daa mel ni bu fekkente ne tey seen bokkul ca course ba moom moom boole na boppam ca course ba ak lu mën a xew muy Kéba Kanté Kéba daal la mu xamle na na li leer ba leer daal moom candidat la ndax jàpp na ne Alioune saar taam jeex na la ko waroon def na ko kon dem dong moo fi des fi mu nekk nii nee nag moom bu fi jógee moom bëgg naa jël bank ba jiite làmb ji ñu ne ko lu tax mu ne waa parce que li tax lenn la dama cee bokk te nag bokk ci bokkul ak ñu boole la ci man produit wu làmb piir la làmb dama ceeb bokk yàgg cee yëngutu jiite ay écrit ànd ak ay mbër jàppal ku ne ma jàppale la si làmb ne na loolu daal mooy li ma ci boole may doomi Fatick boole ci ki nga xam ne nii wala boo école saa njàmbur ne na jiite na ko école de Fatick ne na tamit jiite na ko ak ASC bu ñuy wax sa ASC guy gi ca Fatick ne na lii lépp def na ko kon moom yaakaar ne daal pire produit làmb la maanaam doomi làmb la moo tax daal mu jàpp ne kon moom jiite gi moom du mën a ñàkk ci côté wala daal lu mu bëgg la moom Keba Kanté moo xëy tey wax loolu ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey ba tey dañuy def sunu làmb yaxi jóob yi ki ni moom ba tey yëglikaay bi ñëw na ci moom de mu mel ni ki nag moom wàllu mystique daal mas ta nekk loo xam ne nii daan na tax mu raf wala mu badine wala nangam ak sàngam déedéet daa mel ni loola masu la am keneen koo xam ne nii moom boo bëggee dégg dégg daal la mu bëgg daal mooy jën wu mag la bëgg a jàpp ci géej gi maanaam soxlawul yaboy aw mërëg wala yu mel ni kii noonu wala bu yuus déeréet ay coof daal la soxla muy double moteur bu rëbës yëglikaay bi ni sunu làmb xëy wax nu ko ne nañ moom daal nappam bi yëpp jën yu mag yi lay wër maanaam Moodu Anta ama neex ñii daal la teg ay bët ñoo nekk ci ay bëtam waaye keneen moom daa mel ni talu ko te naru ko loolu moom wax nañ nu ko yëglikaay baa xëy tey wax nu ko keneen koo xam ne nii moom bu nekkoon ci làmb ji di continuer moom dana dem ba nekku coof wala lu ko raw muy raam daan ba nekkoon ca parcelle te tey mu xëy xëy dem États-Unis di fa dund beneen dund mel ni ki nag yëglikaay bi daal nee daal li am ba def day ci gëstu Boubacar Niang daal lamb ja perte nañ boo xam ne ni bu rëy rëy rëy la naroon a doon ci lamb ji ba tey bu ñu desee sunu lamb ak Assane Waalo Gaye moom xëy na wan ñu papis général boo xam ne daal papis ginnaaw coow li ko toppoon fan yii moom leneen lu mu nar mooy dellu si ci lamb ji takkaat ngémbam bëree moom papis général yëglikaay ba moo xëy ñëw tey wax ñu lu mel noonu ci xalima ka nga xam ne nii moom moo di Assane Waalo Gaye ba tey bu moom moo di ca sunu lamb mu mel ni que nag fan yii moom Instagram ba neex na rawatina bulit TV ba ndax nag ñu ngi fay gis mbër yi di fa jàll bës ma moom kër ga di leen dalal di waxtaan ak ñoom muy ñoom Garga Mbossé ak Sa Thiès ak ay rëg-rëg ak ñu mel ni kii noonu yëglikaay bu ñëw na tey wax nu ko beneen xale boo xam ne ni moom benn combat la jotagoo def ren ci saison waaye daal ah tur wa muy wuyoo daal daa mel ni def na ko ma maanaam naaw jëm ca kaw muy ceeli bu écrit plateau yëglikaay bu xëy na tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu mu ni beneen combat boo xam ne moom yëglikaay baa ngay laaj kañ lay doon muy diggante Papa Sow ak Siteu loolu la sunu làmb xëy tamit samp ko fa nga xam ne nii moo di ab laaj waaye keneen koo xam ne nii moom jàppal ay mbiram itam fi mu nekk nii jur na ay wax muy Bombardier lañ waxoon ne maanaam li ko deseeti bariwul ay weer yu néew néew la te mu weddul ko boppam ci sunu làmb record na ñëw tey dinu xam ne daal la mu waxoon moom jógu ci tey suba waxi noppi li am ba des daal moom fi mu nekk nii moom bu saison bii jeexee licence u làmb dootu ko mën a am loolu ba tey mu nga fa nga xam ne moo di record ñeneen ñoo xam ne nii moom wàllum seen i mbir daal xaw naa dox wala boo bu dee mbir mi daal daa taxaw saison bi ñoom daal boo leen xaymaa am nañ 60 pour cent de réussite muy waa parcelle mbooloo maanaam six victoire la ñu jotagoo am ak quatre défaite saison ba daal di fa jaaree taxaw mu mel ni saison ba nag la ko taxawal lenn la mooy coronavirus bi nga xam ne mooy lëmbe jamono ji toog ne dajj ci àddina bi ne dem mu mel ni nag am na ñoo xam ne ngir mu dem jóg nañu ñoom itam takku ba dëgër muy mànga de ak ñamu àndal ndax nag dajale nañu lu toll ci ci 400 masques maanaam ñeenti téeméeri masques yoo xam ne daal moom lañ jox ñi nga xam ne ni ñoo di écrire dem nag la loolu amoon fa nga xam ne moo di ca parcelle mbir ya mu nga ca Leewtoo TV ak yeneen yëglikaay yoo xam ne ñëw nañ ci moo xam record la wala li TV wala keneen ak keneen maanaam daal maa nga àndoon naag Babou Mbaye ka nga xam ne moo di Malick Ñing ngir nag écrit yi ñu jox leen loolu xëy na dañoo bëgg kon mbër yu mag yi tamit gën taxaw seen écrit ci wàllum coronavirus bi rawatina ña nga xam ne ñooy tête de file waaye mu mel ni coronavirus bi moom loo ci mën a dégg xam naa ne daal fi mu nekk nii moom ku tiitul itam xëy na da nga di xale wala dara waru la waaye nii ma gis muy doxee daal dalulam xel te wuurul te defe naa nag yem baax na trop trop waaye jëli Jakarta di fay trente mille wala oto di xuusab dëkk këb dëkk te ña la nga yem fii faju defe naa ne lii daal toog faju moytu moo gën a war yàgg maar waaye lii bu yàggee anarsi lay doon te reewande nag billaay bu la lorut doo xam ne amul njariñ te boo ci nekkee fii jógoo ci bala nga caa jóg danga ci yoo xam ne bu keroogee yow doo nga koy wéeti kon yàlla nañu yàlla may ab yar te muy dëgg ci ñun. mbokk ñuy suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jaajëfal Babacar ngeen àndaloon ci revue de l'arène bi Babacar ñu ngi lay nuyu. ngi lay fay biram di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi ñuy suivre ah xaram wàcc tuuti ngi lay nuyu di la di nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi ñuy suivre ci Leewtoo TV à travers. Babacar bi dafa rafet. waa bii de manque de moom ma jox nag ma koy nuyu en passage di ko ziar. waaw Père Manga. waaw ñu ñoo ngi ci sunu lamb sunu lamb ñëw ba léegi ci succession Alioune Sarr bi daal ne moom Tyson moom daal génn na ci carte gi. waaw loolu day la journal bi dem ñu ngi consulter quatre personnes tey dafa mel ni tey ñëw na duggaat boobu ci gëstoob ki nga xam ne nii moom mooy Iba Kane que moom bu dee ku ko doon xaar mu jiite moom bokkul ñu consulter maanaam cité na ñenn mel ni ki daal ah loolu ñoo ko bind mu mel ni kon daal li may wax rek nañu yónnee yàgg ba xam mbir yooyu fan lay mujjee quoi nañ ko topp waaw. waaw Yékini daal nee na moom ci sunu làmb daal moom il n'a jamais badiné euh, li nga xam ne mooy mystique. maanaam daal mbalu mbàllu mystique su ci mosu ko def problème quoi wala mu koy ébranle wala yooyu waaw yaakaar naa loolu su ko waxee dinañ ko gëm ah, parce que Yaxya boo ko gisee si biir làmb ni mu doon doxale li mu doon def fonkoon na ko gen xeetu fonk goo xam ne nii moom li mu gëm mooy li ne ci moom ak li mu indi parce que daan na ko wax boo waxee mu ne gëmuma daanu daan laa gëm te effectivement loolu lu xel mën a dégg la parce que moom li mu gëm mooy dafa war a daan te doon liggéey. yaa ngi dégg kon kuy ñëw rek day jàpp ne lay daan loolu nag soo ko defee nekk sportif di entraîner yow wàllu mystique di nga ko ci boole de mais du maanaam du dugg sa bopp ba di déstabiliser te moom defe naa ne loolu durant carrière am boo gisee boo xoolee mentalement da ngay xam ne kii mbër la moo xam ne nii maanaam ébranlé ko ci wàllu mental yu mel ni kii noonu xawoon na jafe do trop trop trop te des fois koo gis mentalement ci muy sonn ci biir làmb jàppal ne mystique ba day bokk ci lu muy sóoraale wala que soit mu ñàkk a entraîné di dute ci boppam ba tax muy am problème mu mental Yaxya nag loolu defe naa ne boo ko xoolee dira carrière am yëpp loolu arrivé wu ko. waaw këru suñu làmb bàyyeegul ba léegi coowal Alioune Sarr indil Alioune Sarr dafay bàyyi bàyyi na ba léegi ñu naan ay consultation ñeenti nit ñu naan ci ay li nga xam ne mooy amateur bu am ay diplôme euh, kuy liggéey INSEPS ainsi de suite. waaw loolu daal li am solo mooy comme li ma la si waxoon sànq rek maanaam mbir la moo xam ne débat bu jóg la sunu lam bind na ko tey tey mu xëyaat ci ah li ci am solo nag mooy ñiy bind foofu ña fa ne di liggéey c'est des professionnels ñu leen di nuyu di leen ziar ñoom Iba Kane euh, ak suñu gars yi ne su sama xarit doomu sama doomu nday Dembélé ak ñoom Assane Wala ñoom ñëpp Boubacar Niang l'homme de Médina ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ay professionnel fa nekk di liggéey xëy na li ñu bind nii ñàkkul xëy na am na fu ñu ko teg waaw loolu nag defe naa ne ñoom ñi ko bind nañu parce que yàgg nañ ci làmb xam nañ bu baax a baax pour man li ñuy def dama xalaat ci sama xel laa jàpp ma ne xëy na kenn ci ñoom doo dem di bind article boo xam ne ni xëy na amu ci lu leer kon nag li ci des mooy ñun ñu yónni yàgg rek comme ni ma ko doon waxee xool ba xam li ñu yàgg maar di indil waaw. waaw loolu moom dina ci am solo ndax yàgg moom bu ñu bëggee mu leer rek jaar ci moom euh, ba léegi dafa mel ni gars yi euh, coowal Alioune Sarr coowal président. gars yi daal yéen yëngalu leen ba Kéba nee na daal moom bu sañoon sax moom ñu jox ko CNG. waaw Kéba moom daa jàpp ne moom mën na ko jiite moom loolu la wax et que ñun Kéba Kanté yàgg nañ ko xam si làmb muy ànd ak ay mbër defe naa ku ne xam ne digganteem ak Jokkel digganteem ak Malick Niang digganteem ak waa écurie sa sa njàmbur boobu ni mu ko waxee ak yeneen écurie yoo xam ne di doomu Fatick te defe naa nga dëkk Fatick rek loolu defe naa doy na ci yow nga war a mën a nekk ku nga xam ne nii kuy diri sa wàllum làmb nga rawatina ko kon defe naa am na droit soit sur ne dafa bëgg a nekk président meloon loolu day des ci waa làmb et puis day des ci ministre ba nga xam ne nii moom mooy nommé par arrêté waaw. mu mel ni dañoo jële ci record ne ah lii di waxu Alioune Sarr day bàyyeeg wala bàyyiwul ak def nañ ko di def nañ daal ñu ne daal ministre daal nee na moom. Euh, amul sax jot boobu mu ngi ci feebar bi. waaw waa ministère loolu la ñu rekoor xëy xamalati mu nekkaat benn débat boo xam ne nii mooy li ma la wax ci euh, xibaar yi euh, ña bind fee ay professionnel lañ ñi bind fii ay lañ ku ci nekk nag la bind xëy na am na foo ko teg waaye man daal li ma xam mooy démb moom dëkk naa micro ki nga xam ne nii ministère la nekk yore fi wàllum communication bi defe naa ne su ma jumul muy muy mbay Jacques Diop moom ci làmmiñam moom daal moom moo xamle ne loolu moom dèjà du ay wax yu taxaw wax yu amul la parce que taluñu loolu. yaa ngi dégg nee na daal ñoom la ñu tal loolu ministral mooy mbirum corona bi ba pare ñuy doog wax ay waxi kuy toog ak kuy dem waaye waxu consulté ak nii nee loolu moom dèjà amul loolu def naa record ñëwaat na ci tey te def naa vidéo bi di ngeen ko gis tamit ci TV muy mbir yoo xam ne comme li ma lay wax la rek euh, yónni yàgg rek li ci kanam raw li bët waaw yàgg daal dana sonn ci yoon wi waaye loo ci mën dégg ba parcelle mbooloo daal dafa mel ni moom feebar bi moom teewul dañuy entraîner maintien waaw waaw seen seen écrit ñu ngi ñu ngi maanaam boo xoolee parcelle mbooloo sax da nga naan réussite quoi la yëglekaay bi ñëw maanaam par rapport ak saison bi mu débuté ak mu taxawee maanaam Euh, six victoires quatre défaites yëglekaay bi xayma ko ci 60 pour cent de réussite muy loo xam tamit defe naa ne euh, départ bu baaxoon la kon bu saison bi taxawu kon xay na dinañ gën def ay résultats bu baax mu yëkkati boo xam ne ay mbër nga fa ndax fuñ ne la franc mu nga fa rek defe naa doy na lépp. waaw kon ñu leen di féliciter ci départ boobu ñu jot a def di nuyu tamit nga xam ne moom mooy seen entraîneur di suñu waay di Maam Lees waaw ñu ngi koy nuyu baax moom moom lees euh, ba léegi ñu demaat mbuur ba mbër ji borom guddi guddi mbuur daal ñëw nañ wax ci li nga xam ne moom mooy euh, retraitam ba léegi daal bàyyi waaw Bombardier waanam record ci ñëw parce que boo xoolee euh, démb wala bokk dañ ci ñëw sunu làmb ci ñëwoon non record ci ñëw que ni li ko dese ay weer yu ñëw la maanaam octobre lay jeexal démb Bombardier ci boppam wax ci sunu làmb ne loolu demeewul noonu ndax moom 1966 la judd goon jàpp na ne 2021 la carrière làmbam di jeex waaye nag record ni na tam di maanaam di gën a dëggal la mu waxoon que ni Bombardier ñoom la ñu wax lu leer la te itam malgré que respect bu ñu jox Bombardier yépp mais li wax lu am la que ni Bombardier maanaam bu ñu yeggee mois d'octobre bi passé moom dootu mën a ci làmb la ma lay wax mbir yoo xam ne nii yàlla nañ fi dégg bàyyi daal ñu fekk lépp pétal ko lu ci am danañ ko xam waaw am ñu ne ci topp Babacar dañuy ñëwaat rek ci record wala ñëw sax ci Leewtoo ndax dem da nga ñëwoon demoon parcelle seeti ñu Manga 2 mu defoon lu lu am solo. waaw lu am am solo Manga 2 mi nga xam ne moom mooy jiite association des anciens gloires ne ci làmb ñu gis ko moom tamit taxawaay taxawaayam ci làmb parce que lu la waay mën di wax mooy Manga bëri na ba bàyyi bëri continuer dundal làmb parce que. mën nañ ko jàppee comme membre bu nekk ci CNC jàppee ko promoteur Manga Production ku ne xam na ko muy tëggalit simple di tëggalit avec frappe kon defe naa kooku mu ngi delluwaat li ko làmb mayoon ci làmb tamit gis nañ ko parce que am nañ ci benn tournée boo xam ne ñu nag moom ñoo ànd kera ancien gloire yi tëdd yëpp parce que ku ci ne taal na otom ànd ak ñoom war a àndal ci ancien gloire dem ci yow yëkkati ndimbal jox la ko te loolu am na solo tey bu corona bi ñëwaatee mu def nii ànd ak association boobu jëlaat lu toll ci cent masques jox ko ñi nga xam ne ñooy président école de l' écrit yi ak manager yi ñoom Babouk ñooñ ak ñoom Mbaye Diallo ak ñoom ñi nga xam ñoom ñooy loolu sest bu rafet la kon loolu defe naa ne dafa a yi rek ne ci écrit nekk ay xëy na jukki leen ba teg leen ci làmb foo xam ne tegu nga xam ne ñoo ci seen suuf que ni ñu def effort pour gën a seen écrit yooyu ci côté masques yi parce que fi mu nekk nii masques yi dafa am importance trop ci làmb ji kon maa nga félicitation ji mbir moom mu def démb. ñu mujjee rek ci double moteur yëgal kay wax ci moom lu bëri. waaw moom maanaam daal sunu làmb ñëw ci moom que ni moom jën wu mag la soxla soxlawul yu ndaw waaw loolu nag la père Max Mbargane daan wax rek waaw borom biti kumbag boo gis boo xaree xool ba magasin nga cay fekk xëy na tey ci làmb parce que boo daanee ci làmb naaru soogaas daan fëgala ah léegi nag da ngay daal di bokk ci làmb biram tey double moteur loolu da ko boole ci mbir yi parce que dafa daan ñoo xam ne ay nattukaay lañ ci làmb parce que yu ndaw. naaru sogaas boo xoolee ñi mu bëreel ak ñi mu daan nga xam ne mbër waada la fëgal waxaale wuñ ko defe naa fëgal ku ne xam na ko ci mën a bëreem am fitam Double Moteur fexe daan leen defe ne su ma jumul ci benn saison ah, kon defe naa bu mbir moom demee noonu ah bu ko tey mu ne mu du anta bëgg a bëreel wala ama neex loolu moom am na si plein droit te itam ñooñu ñoo ko jiitu ci làmb mais bu la neexee ñoom tamit war nañu mën a gestu may ko sens mais du tere tamit am na ñoo xam ne ñu ngi mel ni moom di def li muy def ne ciy tànkam ku mel ni Maama Lamine ku ne gis na li muy def yaa ngi dégg di xale bu am talent mel ni kon daal noonu la lamb di tëddee waaw. la ci mën de garab daal ci kaw lay fekkanteel. Ah, kon mbokk yi ñuy suivre ñu ngi nuyuwaat ñëpp vraiment nuyu bu baax waa ak rek comme ni mu koy waxee suñu cher tanik du ma ko fàtte mukk ndax bu am ñu ngi koy nuyu waaye itam nuyu waa groupe baax Babacar nuyu jeune amateur yi nuyu grand du Bey waaye itam nuyu El Hadj Max Mbargane bu baax a baax. mboolem ñiy suivre ci Leewtoo TV daal ñu ngi leen di nuyu baax leen ñaanal. Père Max moom ñu fàtte di ko nuyu moom dañ ko ñaan yàlla guddal fanam wéral ci ram parce que bu ñu dee wax ñu duñu dégg moom daf ci suye part bu rëy rëy rëy parce que ku fàtte la la fal booy foole doo ko yëg te suñu wax ñun rawatina man Babacar am na lu mu ci def moo ko mel ni Pape Maguette Ba bi nekkoon Leewtoo bi te léegi mu nekk Sénégal ñu ñëpp duñu leen fàtte parce que dafa am lu bëri lu ñu doon partagé ci wàllum làmb ay Mor Niang Mbacke Baar xam nga Euh, mu nekk ay ay suñu papa Ngagne Diagne ay moments yoo xam dañu doon partager ak ñoom loo xam ne ni si làmb bokk na ci tey li ñu gën a dimbali kon ñoom ñu ngi leen di jaajëfal di ñaanal gudd fan ak wér gi ku mu ci tudd tamit xëy na njuumte lay doon ak fàtte yaa ngi dégg di nuyu waa jeune amateur comme ni ñu ko waxee seen président Gora Ndoye di ko nuyu di nuyu euh, nga xam ne mooy Ibra Ibra Diouf bu bébé jul détail bi sëñ Mbacke Medina ngi koy nuyu nuyu ñëpp ñi nga xam ñoo fa ne ñoom Balla Diop ak ñoom Modou waaye tamit di nuyu fi nga xam ne nii lépp ñoom la ci Babacar muy waa groupe baax rawatina le président Massamba Dieye su Babacar waxee rek ñoom la parce que li tax ma wax loolu ñoo ma doon wax loo ba nit ñi mën maa dégg kon Massamba Dieye mention spéciale liggéey bi nice na gis nañ sax ñu def ay masque pour di ko dimbali nit ñi groupe baax loolu am na solo di ko nuyu di nuyu ñoom Sora Malick Mamadou Diouf Badara ñoom Ndak Khady Ngone du ñu fàtte kenn Abiloum ñoom ñëpp nuyu nañ leen laay bu faas sabarak ji maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu amateuru làmb yëpp yëpp di tamit sama waa dëkk comme ni nga waxee waa village rawatina sama soxna te maa ngi koy nuyu di nuyu tamit waa Ngunjaan comme ni nga ko waxee sa soxna ndaag maa ngi kii nii di nuyu doomu ngunjaan yëpp fu ci waaye ma ne maa ngi lay bégee mais dam di wax mention spéciale sama mère maître Pape Sène waaye mention spéciale tër yi nga xam ne ñoo nekk commune Ndondol